ahasubillah bismillah ina wali yàlla jërëjëfati Seexul Xadim jërëjëfati Seex Ahmadou Bamba Xadim Rasul asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xam se ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro noo ngi leen di siyaare baax te di leen dokkeel di leen ñaanal jàmm xewal ci barke Seexul Xadim mu mel ñoo ngi ci soppay euh, di euh, ci weer tubaab euh, di la onze di la quatorze incha allah ñu fas yéene si ñoo nekk ci bi macha allah ñu mel na ñoo ngi ci waañ wi ni muy central bi nga si moy central daire soppey Serigne Saliou mbake kenn ku ne xamne ne daire soppey Serigne Saliou mbake dañu baxo def ay commission yo xamantene ci si bi daire bi nekké jëm ba nopi ñu tass ko ci ay commission yo xam si daire bi day dox ci walu woow nga xam si kenn ku ne amna na bo xam ci fa ngay dalal say gan toppatoo leen ñi ngi ci wañu ñëk wi nak di central soxna marem Ndour mi nga xamantene ci si jité liggéey bi ci walu soxna yi Serigne Khadim Fall Wakana Haqqan jité euh, gor yalla yi Serigne Ousmane Diouf ci organisation bi masha Allah ñu woote bis bo xam si bisu delo ñukal Cheikhul Khadim la waye sante Serigne Saliou mbake jambar ji nga xamantene ci si masha Allah kenn ko ne ràññee na ab liggéeyam ci njabotou cheikhul khadim gi ñu nek fi ci wañu nak tànk ak mbok talibé yi fekk leen ñu nek ci liggéey bi masàllaa tarkalla euh, jublu ci liggéey bi soxna marem euh, yow mi nga xamantene ci si sha Allah naa ne ba cyant gi doré ba légui ñu diko wajal at mu ne yag ko fekk ñu yag la fekk ci wañu di ñaan yalla nga yag ko jité sa gëna rafet ma rafet Allah ci liggéey bi ndax sha Allah amna solo lan ngay wax ñi nga xamantene ci si ñoo ñuy bàyyi xel Allah ci babakar Pro way ñi nga xamantene ci si ay mbok talibé lañ te tey safo liggéey bi Allah lan ngay soñé ak lan ngay dugal ci ay cadre rek yo xamanteni ci day jëm ci mbok taalibe assalamu alaykum mbok taalibe ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baaxa baax di rafetlu cadre yi ak teewaay bi di sant képp koo xamanteni ñëw na ci bis bi muy centre ak feneen foo mën a ñëw ci bis bi rek ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu xaar yi nga xam ne moom lañ nekkal taxaw ni dend ak mom ak serigne babam serigne saalu nga xamanteni mo yor camera mooy suñ camera nu serigne sopp serigne saalu diko ko bu baax mu yok ba yëkku ci barke serigne saalu Mbacke ni wax ni tiant gi mom chaque année ni lay demé comme niko serigne khadim waxé rek daaira bi nekk daaira sopé serigne saalu nga xamni ni la biir ga way adna bepp ñu ngi koy bàyyi xel ci ginnaaw yalla ñu sante serigne babakar nga xamanteni lepp mom la ndax lépp daal moom la ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaan mu yokk ba yëpp ci baax sëñ Saaw di sant képp koo xamante ne tamit teew nga ci bis bi waañu di sant suñ jëwriñ sëñ Xaadim Fall waxtaan ak jëwriñ Ousmane Nooré ni sant mbokk taal bi nga xam moom lañ bokk liggéey bi yëpp fii nii waañu central comme ni ko sëñ Xaadim waxee ñu nekk fii jiite soxna yi jiite daayira bi tamit en même temps di sant sëriñ Fon mi nga xamante ni tamit moo jiite wàllu góor yàlla yi ci waañ mi di suñu sunu yaay yi nga xam ne ñoom ñëpp tamit ñu ngi fi di bàyyi liggéey bi xel saa su ne dañ teew di ànd ak ñun di ñu magal di joxe seen xalaat ak seen barkeel bu baax a baax di leen ñaanu ñu yàgg fi lool te ñu ngi rafetlu bu baax daal maanaam. jéggulu baax tamit xanaa dañoo nekk liggéey moo tax nag wàllu kii yeeg yooyu génn bu mais ñu ngi rafetlu lépp daal rafetlu nañ ko baax a baax a baax ñu ngi rafetlu lépp daal. ay jeetar kàlla yi rafet na am na solo yal na sunu borom gën a saxal barke borom kon ñoo ngi ci añ yi na gaa yi xaar reer yi te xam ne ñoo ngi ñëw léegi ñu yegg si waat ci reer yi aco sëñ sëñ Amdi noo ngi siyaare bu baax a baax moom masàllaa ab baay fall la ab ñàqkat la ab xidmakat la masàllaa saa bu ne bu cant sob sëriñ Saliou Mbacke taxawee rek day bàyyi yitteem yëpp ñëw ànd ak gaay ci wañu rawati na wañu central bi sa bo ñëwee fekk ko fi señam di lan ngay wax mbokk talib yi nga xam ci ñi ngi lay bayyi xel ci babakar Pro waye ñi nga xamanteni ci ñew nañ ci cant gi ak ñi nga xamanteni ci ñi ngi bitim rew ñu bari ño xamanteni ci ñi ngi connecté ci babakar Pro ngir bëgg sifur li nga xam ci moy ne am ci quartier soppay Serigne Saliou Mbacké salaamaaleykum mbolo mi ñi ngi xiar bu baax sëñ khadim di la siyaara bu baax di rafetlu cadeau yi di rafetlu cadeau suñu jeewrin soxna Mariama Ndour ak suñu jeewrin yi ñu seqal muy sidina Ibrahima dem ci yalla bara faal ñing koy ñaanal yalla xaaral ko aljana ndax danaka fuñ fi nekkando rek suñ xel day dem ci mom di ziar señ sëñ mor xondu gay ibundur Ndour ñooy jaurin jëwrin ñu and ak ñom nekk ci liggey bi ak señ bakke mi sama jeewrin ña ngeen bi nga xamni mom foko fekk ci ki yoy rek waaw di lu kaddu yu bu baax di top seen ginnaaw ndax ñom ab soñu lan ci ñun daayira bi di di gërëm ñëpp ndax yaatal gi surtout sëñ Xaadim Fall ak maanaam mboolem ñi ñin fi nekk rek ñi ngi ñi ngi ñi ngi leen di siyaar bu baax a baax di rafetlu mbir mi te it di ci soññ suñu bopp di ci soññ képp koo xam si ñu ngi nekk ak yow di ñaan yàlla mu defal ñu ay tawféex te maanaam waañ wii di central moom yàgg nañ fee nekkandoo ñu nag suñu jëwriñ yi yitte nak nag moonu ko moy sa way kon sa su ne ni nii kii rek lañuy defando ñun ñep waaye nak mom ku ci ne ko xol sa bop rek xam li teunk sa morom waaw lool do di way di di rafetlu li nga xam si moom liggéey ak suñu way junuñ fi nekkal ñu ak nangu lool di ñu soñ bu baax nak ci liggéey bi ndax daanaka ki nga xam ci ma nga tante di liggéeyal señ tuba di ko sante nga fassiyene mu yaatal la ca lool ba ba ba bëgg ñu xam la ca wala ñu gis la ca maanaam kooku bëgg na laa dimbali waaw moo tax à saa su rek moom amuñu lu ëpp lii lu dul liggéey sëñ Tuubaa ñun amuñu ko ñu nag suñ jëwriñ fi nekkal Europe bi ngi ne waaye nee na daa ragal kàddu gi te mooy sama jëwriñ ci waañu waaw mais nag ñu ngi rafet lu baax daal di ñaan yàlla ñu yàgg koo def te suñ borom defal nu ay tawféex yokk xéewal yëpp barke borom Tuubaa waaw ñu ngi tub baax ci kàddu yi tarkala mbaa kenn loo rek bu ko ñu di mën a bi mën a ci neen commission yi waaw rabbil alamin ñoo ngi santaat ñëpp bu wér wax central bu wootee ñëpp wuy si ko rek mhm. dañuy baax central mi ngi sant ñëpp mhm. parce que liggéey liggéey Serigne Touba la mhm. amul xaare ku la jiitoon moom da ngay topp suñu gannaaw rek duñ taxaw wax si yoon yi di liggéey gars yi mbokki yi nga xam ñoom dañoo xaw am gàntut ñoom ñu ngi woote di jéggalu bu baax ñoom it ba ngi waaw ñu ngi leen koy nangul ak ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu egg si jàmm ak salaam dëgg yàlla kontaan na lool kontaan na lool ñu ngi santaat sëriñ bi bu baax a baax a baax di santaat Baye Jëwrin bu baax ndax lii lépp moom la ñoo ngi koy sant bu wér a wér a wér jërë ngeen jëf macha allah tarkalla jëf loolu mooy kaddu yi nga xam si waa central moom lañ doon yëkkati ci bis bi mu mel ne ñoo ngi ci acoo xam naa ne bu ko defee dañuy daal di seetiwaat yeneen commission rek acoo yéen connecté leen ci Babacar Pro bu ko defee man koo seetaan en direct incha allah bu sobee yàlla aca ahasubillah bisimillah inaa wali yàlla jërëjëfati borom Touba jërëjëfati Seexul Xadim jërëjëf si Ahmadou Bamba Xadim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi xam se ñu ngi xel ci Babacar Pro noo a a baax te di leen rek fas yéene na toppal mbooleem loo xamante ne si mi ngi ci am ci bis bi ko jógee ci mbooleem bërëb yi nga xam si jaar nañ fa tey nag egsi nañ fii ci commission bi nga xam si mooy Touba li Abdin saarixin lahum bi khidmatin aw bi bin aw hadiyati barkab Cheikhul Khadim muy commission wa am solo macha allah nek nak ci dara ji dara ji nak fi moy bërëb bi nga xamanteni ci moy mooy Serigne Saliou mbake ñu def ko muy ay alquran ñu di fi jangal xalé yi nga xamanteni ci ñu ngi ci bir dara soppay Serigne Saliou ba ci ñi nga xam ci bokku ñu fi Serigne Cheikh ndjay wa kan haqan nek fi di taxaw dara ji nang koy siaré bu baax diko ndokel tay wa commission ñoo taxaw ni Serigne Ibrahima Diaw mi nek ci bop bi soxna soxna soxna Khoudia nek ci bop bi mom tamit jité soxna yi sha allah ñu fekk leen ci liggéey bu am solo la ñu nekk ci li nga xamanteni ci xamna ne bo defé yëfi njuufeen yoy ba paré ba sa biir fess bo ñëwee mom lañ lay jox bu ko defé nga daal di koy desserrer macha allah bu ko defé mëna daal dem ci bass ba mëna a cérémonie bi sëñ Ibrahima lan ngay wax ñi nga xamanteni ci no ngi ñuy bayyi xel té duñu rawati na wa quartier soppe Serigne Salim way rawati na ndaw ñi ak ñi nga xamanteni ci dañu am yéene liggéeyal Cheikhul Khadim assalamu alaykum mbokk jël mbokk talibé ñi ngi ziaré ñepp lañ jox seen way di nuyu bu baax suñu khadim mi xam ci ni mo yor li nga xam si ne mooy communication ak sëñ baaba ñu leen ziare bu baax di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér man lañ koy ñaanale xalifa des Baye Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw di am mbégte bu baax si bis bi nga xam si nii si la nekk muy bisu bi nga xam si nii mooy bisu Serigne Saliou bi ñu si sant bu baax a baax si li nga xam si ni moom lañuy taxawoo saa su nekk muy si wàllu berne ak lépp loo xam si ni maam liggéey bi laaj na ko rek saa su nekk di jiital lu baax si ñëw suñu jëwriñ sëñ Mañaay Samb mi nga xam si nii daanaka lii lépp moom si moom si moom la commencé mm-hmm. ba tey jii fi nga xam ne fi leen tool mm-hmm. di fàttali bu baax mbokk taalibe yi rek li nga xam si ni moom moo tax a jug commission bi. Mhm. nga xam si ni moom lenn rek mooy liggéeyam si si bis bi. Mhm. muy berneel mbokk taalibe yi nga xam si ñoo fi ñëw. Mhm. si wàllu xéewal ak lu mën a doon. muy mag ñi ak tout tànk yeeg yëpp rek. maanaam moo tax a jug commission bi. ñi xam ne commission bi xam si mooy Touba Li Abdil Mouridine ak commission bi nga xam ne mooy Xelcom ataaya. dañ koo boole mu nekk benn. ndax booy xool maanaam fi ñu nii daanaka commission bi rek benn la. maanaam li ñu daan defee rek moom la jël indi ko def ko fii mu nekk benn kon dañ jàpp ne liggéey moom lépp rek benn la maanaam ñi ngi tuub baax di jégalu amaana kàddu yi ni ko bëggee woon sax maanaam jékkewuñ ko noonu waaye dañoo bëggoon a rafet rek waaw moo tax xel ci Babacar Pro mm-hmm. lan nga leen di dox kàddu yoo xamante ne si maasàllaa ci danañ a bànneexu daal noonu lañ ko mën a waxee ndax wax dëgg yàlla ñëwuñu waaye seen xel seen xalaat yëpp mi ngi fii ci bis bi waaw kon non ko soññee rek mhm. loolu day am solo bu baax kon ñoo ñi xam si ni mooy waa diaspora bi mhm. ak ñi xam si ni maam dañoo jóge bu sori ñëw teew si bis bi mhm. maam da leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal bépp jéego goo xam si ni maanaam dox nañ ko ak mi ñuy dellu yëpp suñu borom def ko ay yiw yu bare bare bare maam di leen wax ne maanaam fii moom quartier Sëriñ Saliou leen rek lañ ñuy xamee muy liggéey Sëriñ Tuubaa kon bis bi nga xam si moom leen am muy bis bii nii bisu Sëriñ Saliou bii fu waay mën a jógee ak koo mën a doon da nga la berne ba nga xam si ni boo delloo mhm. maam da nga amaat ak mbégte bu baax a baax a baax ndax liggéey bi loolu dong la berne mhm. berne ak jàng xes de alxuraan kese loolu rek liggéey bi la kon ñu ngi tuub baax di jéego macha allah sëñ mhm. na solo bu ko defee dañuy daal di jox euh, soxna soxna xujja may fàtte tur bi rek euh, macha allah tarkaala bu ko defee moom tamit mu wax ci kàddu soxna yi ndax moo jiite soxna yi macha allah ñu fekk leen ñoom tamit ci liggéey bu am solo macha allah soxna xujja waa asalaamaaleykum mbokk yi di mbokk taal bi ñu baax di leen di jéeg bu baax kàddu yi njëkkati mm-hmm. te xam ne liggéey sëñ Saliou boobu nii rek la mën a demee mm-hmm. daanaka commission ataay bi ak benn la ñu boole ko ñu def ko Touba Xelkom mhm. ñu boole ko mu nekk benn man mhm. ma jiite soxna yi mhm. si sëñ mañaay moo jiite góor ñi waaye daanaka rek lépp benn la ñu ngi santaat bu baax di santaat ñëpp di leen ñaanal yéen tamit yàlla bàyyi leen ba si kanam ngeen yàgg ko ànd ak ñun caméra yi yi gën a mën a yokk ba am ci ay studio yu bare bare bare bare yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def di sant baax suñu dëgg Iba Jaw mi xam ñaaw si benn yoon ginnaaw lépp moo ma ne Ndeye Fama ak Bintu Samb ak Fanyang mhm. ñoom ñëpp si ànduñ ñu loolu am nañ ci wax macha allah lan ngay wax kilifa yi nga xamante ni si ñoo leen ñoo leen ñoo leen mel ne ba si kanam ñu yàgg ñoo gunge yàlla bàyyi leen ba si kanam mhm. mhm. lépp si liggéey sëñ bi ñoo ko xam yàlla defal leen ko ñoom tamit jàpp nañ si bu baax surtout Ousmane moom moom ba ba léegi mu ñoo jàpp ñu taw a bàyyi te xam naa bu wóor ak moom comme commission bi kenn waxatu ko tax na tax à chaque fois bu nekkee ñoo dañuy seetlu ñuy sànni suñu commission bi yenn kàddu mm. te loolu loolu ñu def noonu dañuy gën a yokk jom dañuy nekk ay xale dañuy tax ñu gën a am jom te ñaan nañu yàlla bu déwénee mm. ñu gën a yokk ba yokk incha allah comme ni ko ñëpp di defee tarkala acco bu déwénee yàlla na ngeen yokk ba yëg côté barke Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha acco yéen kàddu nga sànni ndax ñu ñuy bàyyi xel te dinu teewlu ci Babacar Pro maasàllaa bari na lool ñu ngi ñuy bàyyi xel rawatina ñi nga xamante ni si ñoo nekk ci diaspora yëpp dañuy daal di teewlu tey bàyyi xel bi lan ngay wax ci bis bi waaw xanaa di kàddu yi moom mën naa ba ñëw gudd xanaa di leen sant rek te di leen gërëm di wax ne moom yëg nañ taxawaay bi ak euh, ñaan yeeg yëpp daal mbokk taalibe yi daal kontaan nañ ci ci taxawaay bi xamaa na kàddu yi mën naa ba gudd comme que si suñu jëwriñ Ibrahima Diop wax na lépp xanaa di leen sant di leen gërëm rek di leen wax ne euh, commission Touba li xam din muridin ñi ngi am ak yeneen ay yeneen surprise yi nga xam ne ñi ngi ñëw ci kanam incha allah rabbi kon di wàcce foofu kàddu yi rek darkaa la Cheikh Moustapha yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak ñu fekk lépp ci barka Cheikhul Khadim aco kon jaajëfal nañ leen bu baax a baax a baax mbokk téléspectateurs yi aco lii lañ leen indiloon ci commission Touba li Habdine Mouridine xam naa dañuy jàllaat ci yeneen commission masàllaa tarkaa la ñun ak yéen amul daw amul arrière ahasubillah bisimillah ina waliyallah jërëjëfati Khadim xadim jërëjëfati seexul Khadim jërëjëfati si ahmadou bamba xadim rasul asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi nga xam si ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen dokkeel di leen ñaanal bu baax a baax a borom ko defal ay coow ba ñoo ngi ci quartier soppay Serigne Saliou Mbacké jant aneel yi nga xam si masallah waa daayira soppay Serigne Saliou Mbacké dañ koy amal fii ci quartier bi masallah ni ma ko waxee woon sànq rek euh, ci biir kaddu yi di ay jotaay yoo xam si jotaay yu am solo di bërëb yoo xam si bërëb yu am solo masallah tarkalla li ëpp solo ci ginnaaw bi daayira bi loo dee jëm ni ma koy waxee fu tollu dañ ko xaj jëm juñu am fo fété am loy taxawé ci bir liggéey bi tay nak ñong ci commission euh, wa jannatu mahwa ma sha Allah day tout tank yo xam ci tout tank yu am jom ma sha Allah ndax biñu xolé i mak di doxal di liggéey néewuñu leen dañ leen di bayé liggéey bi top seen ginaaw dañu ñëw xol fa seen mak tégon seen tank ñu jël fi ñom tek seen tank lolo waral tay ren ñu ñëw def seen commission ma sha Allah ñëw tarkala togg seen ma sha Allah bo xolé suñu ginaaw ñu gi tek ci ni euh, fa seené i berne ñi nga xamanteni ci ñoo ñëw ci cant gi ma masalla ñu koy rafetlu bu baaxa baax di leen ñaanal yalla suñu borom guddal seen i fan te wéral leen ñu taxaw ak jëwrin ji sëñ dam soxna Ngaasa ñom masala sha Allah day yoo yo xamanteni si ñoo fété fi ci commission bi di doxal liggéey bi sëñ dam nan ngeen gisee liggéey bi masala tarkala am amna solo euh, ay at yu bari seen yu mag di taxawal di ci dox di ci wax waye gis nañ ne ren indi ngeen lo xam si lu best ci liggéey bi moy ay ndaw di ay ndaw yo xamanteni ni si dañoo ci seen buntu aduna aduna soxla leen waye ñu jël lepp dëgmal Serigne Touba ndax taxawaay bi ñu taxaway kep ku ñew da nga yaakar ne yu mag la te fekk ñiko taxawal kenn ku ne fukkat ak juróom làqagu ko kon sha masala lan ngay wax sa morom yi nga xamante ne si ñu ngi ci koñ bi waaye ñi nga xamante si ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro ñoo ngi siyaare bu baax a baax a baax la waaw salaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu siyaare bu baax waaw comme ni ko suñu xaaree ba rek daal di am na solo waa di wax ni maanaam comme comme commission jeneen waa am ay tuut tànk ñoo ko ñoo ko taxawal bañ koy bañ koy taxawal tamit si bisub safar lañ ko taxawal mi bis bis boobu maam ñi ngi doon defee sa makkaan ma safaru makkaan ma si la ñu Ousmane joxe ndigal mm. maam ñu taxawal bis bi mm. ñu ànd koy mbokk taalibe yëpp nag ba léegi maam ñi nekk si liggéey bi mm. mbokk taalibe tey maam ñi nekk suñu ginnaaw tey maam bàyyi ñu ko liggéey bi benn yoon ñu ngi chaque jour maam lépp lu jëriñ war def rek ñoom ñu ngi ñu def ñu ngi jàppale lépp lu ñu war def rek ñu ngi def waaw ki si mel ne suñ papaayam ak suñ kaabu maanaam ñoom rek maanaam euh, moo tax boo ñëwee bi da nga naan man man man du ma jëwriñ ci maanaam ñoom sax ñoo gën a ñoo a taxawaay taxawaay jëwriñ mm-hmm. leen baax a baax di leen gërëm waaw jégal baax ci lan ngay wax ñi nga xamante ne si ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñu suivre ci Babacar Pro waaw ñu ne baax nag di ñaanal Babacar euh, yàlla dem ba doon ab télé ba ñëpp di si seeraan ñi ngi bu baax a baax liggéey bi di am na solo wax dëgg yàlla ndax ngeen dagg seen yitte yëpp ñëw fii di wër commission yi mm-hmm. yàlla leen sëñ Tuubaa fay mm. ci jërëjëf sëñ Dame kàddu yi rafet na macha allah tarkalla am na solo soxna soxna Ngaas macha allah moom itamit jiite soxna yi ñoo ngi lay siyaare bu baax a baax ci bis bi te di la ci ndokkeel ci lan ngay wax sa mbokki soxna yi rawatina tout tànk yi nga xamante ne si macha allah ñu ngi ci biir liggéey bi ak liggéey bi nga xam si moom ngeen di liggéeyal Serigne Saliou. waaw asalaamaaleykum mbokki jullit mbokk taalibe ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di rafet lu baax a baax si li def nañ ko comme tamit dañuy wax si bu baax a baax si bi na yaakaar naa lii moom dañuy sant Serigne Touba bu baax a baax ndax amaana ay tout tànk lañ te tamit liggéey bi lu bari fekk ma fi damaa raw te yaakaar naa bu mu si bokkee ba léegi gis ma ci loolu ak Pastef dañuy ñaan yàlla na mu gën a yokk di soo ñaar bu baax a baax sama mbokk soxna yi ñu gën a fonkaat bu baax a baax liggéey Serigne Touba bi ndax amaana at yi jàll yëpp daal ñu ko taxawee nii te ren tamit buñ taxawee nii dañoo xam ne ak yokkute la bu baax a baax ñu gën a sant Serigne Touba bu baax a baax. acca jërëjëf soxna nga sa kàddu yi rafet na sëñ papa. bisimilah nga daal di ciy sànni ay kàddu rek xam naa ne boo demee moom moo jiite organisation bi euh, sama waay la ma macha allah tarkalla suñ papa nan nga gisee liggéey bi mu mel ne wax dëgg yàlla euh, avancement am na ndax ndaw bu jógee euh, taxawal lu mel nii te gis ay magam daan ko taxawee kon lépp daa mel ne li li li mag ñi bëggoon ci yéen mel na ne am na loo xam si mi ngi commencé egg si. waaw asalaamaaleykum ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di leen joxe seen wàccuwaay di ñaanal sëñ Mountakha Mbacké lépp loo xam si naan na ko ci liggéey maam borom Tuubaa mu eggale ko ka kaw njottam waaw comme ni ko jëwriñ Xaadim waxee kàddu yi am na solo bu baax a baax maam liggéey moom nii rek lay demee saas na waxtu bu nekk nekk ay tout tànk yoo xam si ne dinoo jug ngir liggéeyal sëñ Tuubaa te rek loolu kese ñor maam moo tax maam ñu defee ko noonu ndax maam liggéey seen Tuubaa ay tout tànk yi di ko def maam loolu yombul maam bañ ci amee ay jëwri ñoo xam si ñooñu ci jàppale maam dañ ci am contentement bu baax a baax a baax ndax maam bu leen neexoon maam tamit ne tout tànk yi foowuñ ndax boo xoolee jamono ji ni mel léegi nga xam ne jamono ji na waaye maam ban dajeeg sëñ Touba maam dañu wan yoon te maam sëñ Touba ku wan yoon bi rek maam fa nga bëgg a yegg yëpp da fa yegg fekkee da nga mbébét ngir jëm egg si sëñ Touba maam moo tax maam ñu defee ko noonu waaw di sant tamit baaba mi xam si ne maam moo yor tele bi maam di ko joxaat wàcc waayam di ko ñaananta lépp loo xam si naan na ko ci liggéey maam borom Touba ak lépp loo xam si ne bëgg na ko ci télé yàlla may ko ko maam di ko ñaanal mu am fi télé bu mag si kàcce Serigne Saliou Mbacke maam ba am ay éléments yoo xam si si biir daara nekk maam di fa liggéey maam loolu ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax maam suñu sañoon sax maam cant déwén maam day fekk mu am télé bi waaw waaw ko sëñ Touba nangoo rek maam lépp lépp li si bëgg na ko si télé bi maam dana ko am waaw di wax mbokk taal bi nga si ne tënkooguñ ci liggéey bi di leen wax maam ñun ñu ngi nii tout tànk lañ maam ku bëgg a ñëw dañ la yaatal suñu biir ndax maam Sëñ Tuubaa moo waral lii maam moo waral jotaay bii maam maam képp maam tout tànk la nga bëgg a tegu ci yoon siraatal mustaqiim maam boo ñëwee fii maam dana da nga tegu ci yoon maam ndax maam loolu rek moo am solo loolu kese moo am solo maam jamono moom daa jeex ba pare kon maam ñu ngi ñaanal bépp tout tànk boo xam si ne bëgg ngaa bokk ci daara sopp Serigne Saliou maam boo ñëwee rek maam dana la yaatal boole bi suñu biir comme ni ko soxna Gaas waxee ndax maam moom daanaka ba mu fi ñëwee yàggul waaye maam wane na gis na ne morom soxnaam ak góor yàlla ni ñuy doxee maam dafay ñëw rek daanaka nekk ci maam mënoo cee xàmmee kan moo fi ñëw tey ñëwul suba ndax ñëpp a booloo waaw Touba jégal masala tarkala kaddu yi na waaye am na solo sëñ ñu ngi ñaanal bu baax a baax a baax mbooleem seen kilifa yi nga xamante ni si ñoo leen tàggat ci liggéey bi ku mel ne sëriñ Xaadim wakaana xaqan sëriñ Ousmane Diouf masala tarkala noo ngi leen di bégee te leen ñaanal bu baax a baax acoo ñu nuy xel ci Babacar Pro kon ñoo leen di joxaat di jàllaat ci beneen commission Assalamualaikum bisimila ina wali Ahmadou Bamba yi xam ñi ñuy xel ci Pro ngi leen di siar waate di leen dokkeel ni leen ko waxee ba tey rek ñoo ci quartier soppay Serigne Saliou Mbacké cant annuel nga xamante ne dañ koy amal at mu ne ñu koy waxee nekk nag ci wàllu visite bi nga xamante ne si tarkal la ñu koy def ci commission yi nga xamante ne si bi euh, di soppi Serigne Saliou Mbacké commission yi ñu ko xaaj masala tarkal la ñu ngi ci commission euh, ak Ashabul Jannati ñaari commission yoo xam si dañ leen a lëkkale macha allah ko defee ñu fas yéene séq waxtaan jëwriñ yi nga xamante ni si ñoo ko séq Serigne Cheikh Kassé macha allah soxna soxna Khoudia Diop ñu gis leen ci liggéey bi macha allah tarkalla ñi ngi ci biir di toppatoo gan yi ndax euh, wax dëgg yàlla kenn ku ne gis na liggéey bu solo bi nga xam si daari sopp Serigne Saliou Mbacké def na ko fii ci quartier soppe Serigne Saliou Mbacké Serigne Cheikh nan ngeen gisee cant gi ren ak taxawaay bi macha allah kenn ku ne xam na ne ñoo ngi ci nawet waaye gis nan taxawaay bi ak pëstef bi ba léegi ngeen nekk ci bis bi macha asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen baalu xaq di leen baal te ñaan suñu borom boole ñu lool defal ko wér ba li mu yéene liggéey Sëñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko bëgg tànn ko mboolem taalibe rek dool leen ñaanal Cheikh Saliou mi xam ne moo tax ñu dajee fii suñu borom yokk leer tax ñu si barkeem e, fi njabootam gi ba ci kanam ak kanam ñu gunge ñu ci liggéey Sëñ Saliou bi waaw comme ni nga liggéey sëñ Tuubaa la rek moom am benn nawet beeg noor ak muy sedd muy tàng lépp la ñamale moom lañ ciy def rek muy néew mu bari dañ koy def ngir liggéey ko sëñ Tuubaa jaamoo ko yàlla waaye jaamoo ko yàlla liggéeyal ko sëñ Tuubaa ndax gannaaw moom moo ne woon inna lazina shari'u fi xidmati fa lahum diyaaru sa janna mu ne ñi nga xam si ñooy gaantu ngir li ma liggéeyal ëllëg diggaal ñoo ñoo fay dëkk kon loolu moo tax ñu gën a am tawfeexu di ko liggéeyal daan ci yéene ak yitte ju sëkk nag te xam ne loolu rek moom moo fi nekk mhm. te lépp lu ñu ci defit mu néew mu bari ñu si sàkku ak taalibi ndax taalibi moom mooy lépp te rek la ñuy mhm. lu ñu ci defaatin mu néew mu bari lépp ñu def ko haddiyee Serigne Touba mhm. ndax haddiyee moom ku xam laa nag li si sëñ bi dégg Hmm. yaakaar naa a nga si def yitte bu baax a baax a baax a baax si farlu si def ci law man ak loo mënut ndax waxoon na maam Thierno na ko day dongay day hmm. li ma leen digal muy addiye ji dama see si juróom-ñaar fukk yi leen yoo xamante ne si hmm. ñeent fukk yi doo ko gis mukk fukk faatuwuloo fanweer yi nag fukk yi boo waroon a gàtt fan moom mooy guddal saw fan fukk yi su fekk na ngaa naroon ko amoon naroon euh, a amul fu fekk naroon waroon a amul njaboot moo la koy may fukk yi des fekk konte ne si maanaam sa wërsëg dafa nar a gàtt maanaam moo lay ma yaat la sa wërsëg kon nag yaakaar naa fukk yooyu yëpp jar na lu ne lu waaye def si hadiya Sëriñ Tuubaa yaakaar ñett yooyu jar na lu ko ëpp rawatina ñeent fukk yi nga xamante ne dañu koo dig ëllëg te xam ne si mukk da faatu moom te ala kulli moom mu néew mu bari mm. foo faatu moom da ngay moom kon loolu moo tax daal liggéey bi moom ñu gën ci am tawfeex bu baax a baax a baax ngir liggéey Sëriñ Tuubaa rek jaamoo ko yàlla liggéey sëñ Tuubaa jaamoo ko yàlla liggéeyal ko sëñ Tuubaa rek loolu def on si def mu bara dañ koy jaamu yàlla liggéey sëñ Tuubaa mhm, liggéey sëñ Tuubaa jaamoo ko yàlla ci ñaar yooyu daal fa lañ taxaw masala tarkala sëñ am na solo liggéeyal sëñ Tuubaa defe ko jaamu yàlla loolu tarkala am solo yàlla nañ yàlla boole barke Cheikhul Khadim waaye lan ngay wax euh, mbokki diaspora yi nga xam si ni ngi ci ay gox yu sori euh, ñëw ci bis bi ngir yàlla ak waaw ñooñu dañ leen di sant bu baax a baax nga xam ne jéego yoo xam ne moom la ñu yëkkati ba indi ko fii lépp rek mu ne mbar yàlla si dëpp ak sëñ ngërëma sëñ bi ndax yaakaar naa loolu moom lu am solo la mbokk taali bi nga xam si ñoom ñoo leen di daal it yaakaar naa li ñu defin moom it moom it euh, euh, dara féetu ko kaw ndax teral say gan moom yaakaar naa loolu moom ku xam li la ci digal ëllëg yaakaar naa kenn du si jiitu boo amee gan si teral ko doxe aw ñamit kazalika kon mbokk taali bi nga xam si ñoom ñoo dagg seen itee jóge fu ay gox yu fasante ko ba ñëw fii fekk si ñu ñooñu ma amuñu luñ leen dara du sant leen te ñaana leen te gërëm leen bu baax a baax a baax ndax dikk gi ñu dikkal nii maanaam xëy na defaluñ ko seen bopp ñu waaye ñun lañ ko defal ndax lii ñu leen di defal jox say teranga

te loolu rek moom mooy liggéey bi tarkala yàlla nañ ci yàlla boole ci barke Seexul Xadim ñu ànd dimbalante te Seexul Xadim rek tax ci soxna xu jël lan ngay wax mbokki soxna yi nga xamante ni si ñu ngi ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro waaye ñi nga ay lañ wax dëgg seen ak rawatina soxna yi muy sunu wajuri yu jigéen yi yi nga xam si yëpp jóge nañ ci ay bërëb yu fasanti ko ñëw ànd ak yéen bis bi nga si bis bi nga xam si da ngeen ci delloo di ci sant Serigne salih Mbacké jàmbaar ji ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk yi di baalu ñëpp ak tey baal ñu ak soxna wax Diop la xanaa di santaat yàlla bu baax a baax di julli ci Yonent sallallahu alayhi Wasallam bi ñu mayee ak fekke ak tal ba ñu taxawaat bi olaat bis bi di bisub sant Serigne Touba bi di sa daayira soppe Serigne Sall di ko taxawal at mu jot ñu koy taxawee nag niñ ko daan yàgg di rek sak année Euh, di ko ak suñuy wayjur mhm. suñuy mbokki dëkkandoo senpai mhm. amuñu seen pay mhm. ndax mën bo ne boo seetloo démb dëkkandoo dëkkandoo fi jitu ñoñu fi jitu taxaw fi taxaway bu rafet bayyi seen yitte yépp tëj seen kër ñew and ko ak ñun bu rafet kon amuñu seen fay ñom di leen sant bu baax di leen jaajeufal di jaajeufal gan yi nga xamantene ñom ñepp jog nañ ngir ñew bokk ak ñun bis bi di mbekté mi ñuy dund ni tay di sant Serigne Touba euh, di ñaan yalla rek ñu koy gën di man yalla di ñu ko gën di katanal at mu jot ñu koy gën di mën taxawee taxawaay bu gën di kawee suñu njort ndax ren moom yaakaar naa jamono ji ni mu demee woon ku ne xam na ko mais yàlla def seede na ne sëñ Saliou teg na ci loxoom lépp a oyof lépp a oyof dara mettiwut dara diisut luñ séntu woon ba ne dana diis buñ ne jakk day mel ne xob muy ndimbalug yàlla bu baax a baax di wane kattanu Serigne Touba mi ñuy liggéeyal te xam ne ki ñuy liggéeyal rek moo am ak pay te moom rek moom moo jara liggéeyal daal ndaxte bu doon ne tey ji loo xamante ne da nga koy liggéeyal koo xamante ne jaru boo jëlee léppay nattu lépp mm, oyof ñu ngi koy defee ak mbégte di ko defee ak xol bu sedd di sant bu baax baax bi ñu yàlla boole waatee ci at ren ñu bo mm. fekkewaat ko di ko feete di ñaan yàlla ñu fekke ko ay ati ati ati at di wax ne dara lu metti amu ci daal lépp mbégte kese la acca mm-hmm. jërëjëf soxna Khoudia jërëjëf euh, sëñ Cheikh macha allah tarkalla kaddu solo ngi ñaan borom ngeen ngeen ko continuer ni, ñu àggale ko jàmm ci barke Cheikhul Khadim ba ngoon ak jàmm ñu daal di dem ca cérémonie ba macha allah tarkalla kon xam naa dañ leen di daal di bàyyi rek ngeen daal dem topp doogan ñi allah acca ayo ñu ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro ñu daal leen di doxalaat daal di seetalaat commission incha jërëjëfati si Ahmadou Bamba Khadim Rasul Assalamualaikum mbokki téléspectateurs yi ñuy bayyi xel ci Babacar Pro nuy waat nañ leen siar leen jaajëfal leen baax accio ba tey ñoo ngi ci quartier sopay Serigne salim Mbacké cant anel yi nga xamni ci wa waa sopay Serigne salim Mbacké dañ koy mal at mu ne accio niñ leen ko waxe won di doxantu ci biir commission yi nga xamantene ci mom la daayira bi xaj muy ay commission yo xam ci yu am solo bo ci dugg rek maasàllaa tarkala day daal di mate sekk liggéey bi tarkala ñoo ngi fii ci commission Nourou ni fekk fi suñu sunu baay euh, baay jibi maasàllaa tarkala ñu fekk leen ñu nekk ci wañ wi ak taxawu gan ñi maasàllaa tarkala ñu nekk ci bis bi nag Euh, ci taxawaay bi ak liggéey bi soxna yaa ngi ngir dalal gan ñi euh, ci suba gi liggéey bi moo nekk nii ngeen gis euh, ñu leen koy baaxe noonu ci écran bi ñoo ngi siyaare bu baax a baax mboolem ñoo xamante ni ñoo ngi nuy bàyyi xel ci Babacar Pro te di leen ndokkeel baax aco bay ji bi nan nga bis bi masàllaa alxames ba léegi di ñeenti fan yoo xamante bis bi nga xamante ne mooy bis bi ni sant Seexul Xadim bis bi nga xam si ci la ñu delloo njukkal Serigne boobu ba léegi taxawaay bi mi ngi rafet macha allah. jërëjëf sëñ Xaadim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi di leen nuyu baax kenn ku ne turam ak santam di wax alhamdulilah rabil alamin bu ñu yàlla mayee ak fekk ak kal ci bis bii nga xam dafa doon bis boo xam ci ñun lu mënta ñàkk ci ñun doon bis boo xam day ak jaamu yàlla ci ñun di ab liggéey bo xam si ne am nañ ci yaakaane sëriñ bi ñu ko nangul ci ñaan sëriñ bi nangul ñu ko ah bis bi nak yàgg nañ ko taxawal yalla di defal ay ndam te ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxa baax na ta gis nañ ne suñu borom bi taxawal nañu dimbali nañu kàttanal nañu ba fam daan jaar la bis yi jaaral na fa loolu ñi ngi sant yalla bu baax ah bo ba tay ñing koy wajal ci ay ci ay at mo xam ci ay wéré rek ay bisik yëpp rek fépp foo xam si ne maanaam euh, war nañ faa dem rek teem nañ fa fépp foo xam si war nañ faa teew bis bi dem maanaam def nañ ko ñu ko tàmbaloon alxames ci guddig maam Seera Faal gi nga xam ne lu waay di ci yoonu murid rek da nga cee da nga cee war a jox da nga cee war a génn ab cëram cëram nag doonoon bisu bisu guddi àjjuma gi bisu bisu maam bi bis boo xam si ne maanaam maanaam kullu kii Baay Faal ci Louga rek yaatal nañ ko ci mu mel na mu war a mel ci àjjuma bi moo doon journée xasida ba nga xam si ne moom ci lañ doon ñaanal Serigne Saliou commission culturelle doon ko taxawal muy bis boo xam si ne tamit wax dëgg yàlla bisub alxuraan loon ak bisub xasida ak bisub sikkar ak bisub ñaan gis nañ di maam dugg nañ ci bis daara maam ak alhamdulilah rabbil alamin démb yàlla dogal na ñu dem Touba ziyaare ji Serigne Mountakha mi nga xam si ne moo fi nekkal Serigne bi di ko ñaanal yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba naa la mag yéen ci gël seen bi yëpp mu def ci lu kawe yàgg ñoo jiite ñu yàgg topp ci ginnaawam tey ji nag di bis bi nga xam ne mooy bis bu tej bi di cant gi yàlla dogal maanaam ñu tudde ko seen sëñ Mbacke Bousso mu doon ab imam boo xam si ne kenn doon ko présenté ci yoonu murit ci borom xam di ko sell lool yàlla dogal itam ñu tànn ci imam boo xam si ne mooy imam suñu baay am di sëy dëkk ci kër sëñ Louga gi ñu koo njukkal tey jii incha allah rabbi bu taak saan jotee maanaam mu doon loo xam si ne dafa nekk waa kër sëñ Louga gi ndaxte ndaxte naa que sëñ bi koy li ci ay imaam ci la te nag moom lañ war a njukkal tey ci base bi incha rek ci kanam ñu ngi jéglu baax ci guddal gi yooyu tarkalla bay ji bi am nañu mbégte ak kontaan baax tarkalla kàddu yi ni nga ko waxee bis bi ñu tuddee ko Serigne Mbacké Bousso ku nekk xam na ne Serigne Mbacké Bousso digganteem ak Cheikhul Khadim mu doon nijaayam di léppam macha allah tarkalla kon bu ñu jëlee bis bu toll ni tuddee ko ba pare tànn walu imam yi ño don yonent bi ci kaw suuf ndax ñooy taxaw ci kanamu euh, talibé yi ak jullit ñi di leen soñat di leen delo si seen borom nga xam ci wala sopp sëñ def nañ ci liggéey bu am solo Allah bo xam si def naane ba cyant gi dooree ba ñing koy tax di dem ci ay bërepp yu fasanti ko di sétane di sété imam te li ci ëpp solo mooy ñu ñi bok ci yoonu murit dañoo xool ni képp ko xam si imam nga mo xam ci côté bo mën di bokk waaye li li leen tax a jóg dundal lislaam yaatalaat liggéeyu cheikhul khadim mu melna lolu gis nañ wa daari sopp sëñ Saliou def ci lu am solo kon xamna dañ lay joxaat kaddu gi rek nga daal di koy mottali waale ci imam yooyu ak euh, waa diaspora bi nga xamante ni si ni ngi nuy bàyyi xel ci Babacar Pro ak gan yi nga xamante ni jóg nañ ay bërëb yu fasanti ko ñëw teew ci bis bi lan nga leen di fàttaliwaat ci bis bi waaw jërëjëf sëñ Xaadim waaye di sant yàlla bu baax ndaxte yaakaar naa yi euh, ñu ngi ko àndal waa daa Alaaji Baare Falilu ak waa Ceneba Ceneba yi mooy vert yi ak waa diwaan Turkul Jawaal yi ñoom lañ ko àndal wax dëgg yàlla muy euh, ñu ñoo xam maanaam lu ñu woote rek ñu wuyu suñu ci te it fas yéene di maa invité mboole imaam yi nekk seen Louga gi yëpp ngir ñu teewee jotaay boobu di leen sant nit bu baax di leen jaajëfal yow sëñ xaarim suñu jëwri nga yow ci liggéey bi nga bokk ak sëñ Babacar mi yàlla ak Amar ñu ngi leen di sant bu baax baax seen taxawaay ci liggéey bi gis nañ yéen ngeen ci am maanaam ku ci nekk ak ngeen liggéey seen Touba waaye gis nañ ni côté bii ngeen liggéey seen Touba ak ngeen yéene ci bis bi bis bu yéene boo xam ne kenn ëppalewu leen ko ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom maam def seen mbir mi ngeen nekk ñu koy dégg fu kawe njot ci barkeb Cheikh Saliou mi nga xam si ne moom lañ defal bis bii kontaan naa loolu am nañ mbégte ci yéen jaa ngeen jëf macha allah acca jërëjëf kooku mooy Baye Djibi macha allah jiite commission Nourou Darayni macha allah ci kaddu yu rafet yi am solo yi xam naa mbokk yi nga xam si ñu ngi ñuy xel ci Babacar Pro ak mboolem ñi nga xam si ñu ngi ñuy teewlu xam naa dañ leen di daal di joxaat rendez-vous rek daal di seetiwaat euh, beneen commission macha allah tarkala jërëjëf Baye Djibi jërëjëf mbokk taalibe 的。 ahasubillah bisimilah inaa wali yàlla jërëjëfati Cheikhul Khadim jërëjëfati Cheikhul Khadim jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Khadim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro nuyu waat nañ leen bu baax a baax a baax aco ba kau niñ leen ko waxee woon rek ci dorte ba ñoo ngi fii ci quartier soppay Serigne Saliou Mbacké ci cantu annuel yi nga xam ne si waa amal ñu leen di toppal commission yi nga xamante ne si ñoo nekk ci biir daayira soppay Serigne Saliou Mbacké ñu nekk fii ci commission Taysiroul Nasir masàllah mi jiite ko di masàllah di jëwriñu daayira bi di jëwriñu bi euh, teew euh, Baye Serigne Ndiaye maasàllaa tarkalla moom itamit ñu xàmmee ko ci kër Serigne Louga mu di jànkatu xasida maasàllaa Baye Daam ak mbooleem mbokk nga xam si ñoom lañ bokk liggéey bi yëpp ñu fekk leen fii ci waañ yi maasàllaa ak toppatoo gan ñi ñu nekk ci liggéey bi di teeru gan ñi di teeral gan yi waaye di toppatoo ci bis bi nga xamante ne si ci la sant Seexul Xadim waaye delloo ci njukkal Serigne Saliou Mbacké jàmbaar ji nga xam si lii lépp moo leen ko ak gan tarkala. waaw asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen mbokk jullit taalibe bi yëpp ñu ngi leen di ziara bu baax a baax di rafetlu seen teewaay ci commission Taysiroul Mansiyou di ziara mbokk taalibe yi fi nekk yëpp soxna yeeg ah bis ni ñu ko gisee wax dëgg yàlla boobu ba léegi ngi ci ci taxawaay bi. Iya, comme niñ ko waxé rek daanaka bis mom at mu nekk ni lay démé ci at mu nekk dañ ci sentu lo xamné lu gëna a la wax dëgg yalla ñëpp ngi japp ci liggéey góor jigen ma nga ndaw gis nga commission bi comme ni ngeen ko gisé ni dal bobu ba légui non lañ nekkee ci liggéey bi parce que yéen ko tambalé ni ba ba ba muy jeex rek loolu daal la am ñu ko ci masala tarkala nan nga gisé suñu wajuri yi nga xamante ne si masala kenn ku ne tëj nga sa kër ñew and ak goné yi nga xamante ne ñoo woté bis ahasubillah bismillah ina waliyallah khadim Seexul Xadim jërëjëfati Seexul Xadim jërëjëf si Ahmadou Bamba Xaadimu asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi ni seetaan ci Babacar Pro noo ngi leen di nuyu waat di leen siyaare bu baax a baax acoo ba tey ñoo ngi quartier soppay Serigne Saliou Mbacke cant annuel yi nga xamante ne si waa daari soppay Serigne Saliou Mbacke dañ koy taxawal acoo ñoo ngi ci commission commission bi nu mu tudd xadmatul xidma ayoo ñoo ngi ci commission xidmatul mu xaddimatul xidma commission mu xaddimatul xidma fekk fi soxna Ami Sène Baye Badda Diouf Masalah tarkalla ñu nek ci dalal gan ñi ak togu xewal yi ngir berne wajal ngon gi ngir dem ca cérémonie ba inshallah bu soobee yalla no ngi leen di siaré bu baax baax di leen ndokkel ci liggéey bi ak masàllaa ak taxaway bi mu melne ne ba léegi yene gi ci alxames ba léegi liggéey bi masàllaa tarkalla kenn ku ne gis nako fi ci quartier soppe Serigne salim Mbacké taxaway bi rafetna na lan ngeen di wax mbokk talib yi nga xamanteni ci si wax dëgg yàlla ñi ngi tew and ak yéen ci bis bi ak lan ngeen di wax ñi nga xamanteni ci dañ nuy bayyi xel ci jotaay bi assalamu alaykum wa rahmatullah ngi leen di baax waa commission Moukhaddamatoul Khidma di dalal leen bu baax seen xaadim ak ñi nga àndal ñëpp wax dëgg yàlla di rafetlu liggéey bi comme ni muy doxee saa su ne di sant mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom la ñu àndal teel liggéey bi yëpp comme ni ñu ko daan defee chaque année ren tamit wax deug yalla non lañ ko jappé tay non lañ andanté liggéey bi comme ni ko waxé alxamis ba légui wax deug yalla mbok talibé yi kenn ku né manam da nga tej say kër génn ngir manam bis bi num mu ak tamit bis bi num fawxa comme ni daan mel wala mu gën ko kawé boobu ba tay ñi ngi ci liggéey bi and ak ñun ci liggéey bi wax deug yalla wa kër yi tamit génn nañ seen kër jox wa commission bi kër yi wax deug yalla lepp lo xané am nañ fi sañ-sañ amul luñ ben sens intérêt bo xané jox nañ ñuko ko fu ñu neex wala luñ bëgg dugg wala luñ bëgg a liggéey ñu ngi koy andanté ñoom di ko liggéey wax dëgg yàlla jàmm ak euh, sante bu baakha baakha baax di sante bu baax tamit liggey bi comme ni muy doxee di rafetlu këram di yeen tamit wax deug yalla bo batay dal ñi ngi and ak ñoom wa commission bi ñepp wax deug yalla commission ma xadmaat xidma soxna yi goor yalla ñoom ñepp wax deug yalla ay jambar lañ wax dëgg wax deug yalla kenn ku nekk manam yaangi boole sa sa jaayante comme liñ ko waxé won muy warté fi boole ko tamit ak say jaayante ngir bis bi num mu jage rek té lool rek ngir jëm serigne Saliou rek ak bis bi rek mom moo tax kon lool tamit dañ leen ci sante bu baax di leen ñaanal lepp luñ man ren bu deewena yalla nañ man lu ko ëpp si kàttanu sëriñ bi yéen tamit ñi leen di sant baax di rafetlu liggéey bi ni muy doxe saa su ne di ñaan suñu borom yokku leen taw féexal leen ba lépp luñ bëgg si liggéey bi rek suñu borom jàppandal ko di siyaar baax ku mel na si ñu ngi nuy waa diaspora bi ne si ne ne dem nan waaye bàyyiwun xel ñi ngi bàyyi xel waa daayira soppay Serigne Saliou Mbacké ndax wax dëgg yàlla mboolem loo xam si jàll na fi ñu ngi koy suivre te ni nga koy bàyyi xel té fu mu toll ñoo ngi bàyyi xel digay waye gan ñi nga xamanté ci am ngeen leen ñu joggé ci ay gox yi fasantikoo ñew ci bis bi waaw ñom tamit comme li mala wax sank rek wax deug yalla ñing ci am pasteef bo ba tay ñi xey xëy seen kër wax deug yalla ñëw andant ak ñun ci liggéey bi wax deug yalla yàlla ñaan tamit dañ leen sant bu baax comme ni nga ko ñi nga xam da naka ci daayira bi lañ bok waye ñi ngi ci yeneen réew wax deug yalla ñoo tamit dañuy sant bu baax liggéey bi ni mi doxé ndax da naka amul lo xam ne dina leen ci ump wala lo xam ne dina leen rëcc ci liggéey bi te lool tamit manam bu lool amé ñi seen liggéey tamit ñom da ciy joué kon ñoom tamit dañ leen war a ñaanal ndax daanaka umpale umpale amatul mboolem fu waay tool daanaka lu daayira bi doxee muy alxamis ba léegi daanaka lu benn message bu jàll fii rek ñoom danañ si jot daanaka seen jëmm ñoo téewul waaye amul loo xam ne dana leen ci rëcc kon loolu tamit Pastef la ak liggéey boo xam ne tamit mi koy doxee boo xam ne dañ leen a baax di ñaan suñu borom yokku leen ba ah, saa ne mu gën di yokk di gën a taw féex rek ñu ngi sant bu kontaan nañ am nañu mbégte bu baax a lan ngay wax sa mbokki soxna yi nga xamante ne si wax dëgg yàlla macha allah sunu yaay booy yeeg yëpp nga xam si tëj nañ seen i kër bàyyil seen jot gépp ngir ñëw ànd ak yéen ci bis bi nga xamante ne si mooy amu lu dul moom mooy bis bi nga xam si ci ngeen di sant Serigne Touba di ci delloo njukkal Serigne Saliou Mbacké jàmbaar ja ñoom itamit ñu tëj seen i kër bàyyi ko yëpp ñëw ànd ak ci biir ak soxna yi nga xam si ñoom nga àndal ci biir liggéey ñoo ngi nuyu ñepp di len ziare di wax xamal ni yaakaar naa daayira sopp seigne salim mom bu jup see rek yaakaar naa kër yépp mom dañ koy ubbi kër bo dem rek da nga yaakar ni mom fofu rek fa la cyant ga nek ñepp genn nan japp ci liggéey bi defar ko ba nga xamni ni daal wax dëgg yalla ñepp dañi sant ci liggéey bi bu baaxa a baax ñu ngi sant nag ñu andal ñepp ci liggéey bi wax dëgg yalla def nañ ci luñu mëna ak lun mënul yépp jaayante nañ def nañ lepp lo xamni rek luy rafetal liggéey bi la rek def nañ ko ci ñi ngi len ci sant bu baax nak di len gërëm di len xamal ni daal daayira sopp moom soob rek daal ciy delluwaat la waaw moom bu keet dañ ciy daal di nekkaat rek waaw kay ñi ngi sant ñëpp nag di leen gërëm danoo wax moo tax aco tarkalla ngi jaajëfal mbokk yi nga xamante si dañuy bàyyi xel ci Babacar Pro di leen xamal nii rek lañ ko fas yéene ànd ak yéen fii ci quartier soppee Serigne Saliou Mbacké bu ko defee fu waay mën a nekk rek fu waay mën a nekk dañu bàyyi xel aco aboneel ci Babacar Pro bu ko defee dara ahasubillah bisimillah inaa waliyàlla jërëjëfati seexul xadim jërëjëfati seex ahmadou bamba xaadimu rasuul asalaamaaleykum mbokk taalibe yi nga xam si ni ngi nuy xel ci Babacar Pro noo ngi leen di siyaare bu baax a baax te di leen dokkeel di leen ñaanal jàmm xew barke Seexul Xadim ay ko baaxoo defal tey ci quartier soppay Serigne Saliou Mbacké euh, na niñ leen ko doxantaloo ci suba ba léegi di commission yi ñu leen ko mën a muy Baye Fall yi nga xam si mboolem mboolem luy xidma ci wàllu daayira soppay Serigne Saliou Mbacké waaye wàllu café gi masala allah tarkalla ñu fekk ci leen fi tay ñu nekk ci gan ñi ak berne yi macha allah tarkalla bay sen di jëwriñ ji soxna awa mbeng di jëwriñ soxna yi ñom lañ taxawal fi ngir fa seen leen laaj seen taxaway ci bis bi ak macha allah lan mooy rôle lu café ci bis bi nga xam ci moy bisu cham sopp serigne salim bak waaw asalaamaaleykum mbokk julli mbokk taalibe talibé ñu ngi nuyu bàjjen siyaar bu baax ñu ñaanal siyaar muhammad muntaha mu yag fi lot and ak wër ak jëbru Serigne Touba gep ñu ñaanal bu baax sopp Serigne salim bak bépp di am mbégte bu ak contenté di sant bu baax Serigne Saliou Sy maam moo ñu defal li di sant mbokk talib yépp bobu la ko and ci depuis guddi maam Seram Fall ba ci sunu xasaar ak ziar Touba bi ak ba ci cant gi ñu and ko and ko mbokk talib yépp di sant bu baax baax ñaan Serigne Saliou Mbacké bi ko defal suñu borom yok ay layam tass ñu barkem di am ak mbégte loolu nag si bis bi enseignement am waa Huwa Sifa min ngi ko daal di ëllëg café daayira sopp Serigne Saliou enseignement am mi ngi leen jagleel ñu si booba ngi ànd ci liggéey sëñ Tuubaa ndax lii bu ñu ko defee boo léegi maam ak cant li am ndax daayira Sëriñ Saaw ñu def ay banques ay commission ku ci nekk am ci ab rôle boo ci war a dox di ci liggéey Sëriñ Tuubaa te ñu ko defee boo léegi ak ak yokkute ci am ndax ñun dañuy taxawal liggéey bi dañu santoon dong maanaam joxe café café lañu ñu santoon maam ñu dema dema dem am ba Sëriñ Tuubaa dañuy yokk man dema dem bay taxawal dal di di toog ay xewri yaat du ko jox mbokk taalibe yi képp ko jàppale daayira sëb Serigne Saliou ñu dem wala lépp am fi nag am nag ak yokk bu baax a baax nag sant bu baax a baax mbokk taalibe bépp sant bu baax nag jëruñ sëñ Xaadim Ngom ñuy taxawal ak sëñ Amar Ndoy ak Serigne Baba yëpp ñu ne sant bu baax di jégalu baax nag di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fa loolu tawér ak njabootu Serigne Touba gépp ci jërëjëf Baye Mbaye macha allah tarkal la kàddu am na yàlla na yàlla nangu ñaan yi ci barke Seexul Xadim waaye nu gis ne waa commission waxuma si fa macha allah tarkalla boo ñëwee da nga gis gan ñi macha allah tarkalla fu nekk waaye jóge fa rawatina Baye Fall yi que nekk ku ñëw rek day sawar daral ah, waa waxuma si ndax ci seen liggéey ak seen taxawaay ci wàllu café gi waaye seen taxawaay ci wàllu Baye Fall gi ndax kenn ku ne gis na seen diggante seen Serigne Abdoulaye Fall waaye gis na seen diggante ak daayira sopp Serigne Saliou mboolem loo xamante ne si maanaam ab Baye Fall koy jëf ci kër Serigne am rek waa ñu ngi koy jëf ci biir quartier soppe Serigne Saliou Mbacké ñun nag lan lan lan jagleel Baye Fall daayira suuf Serigne Saliou bañ koo maanaam wàllum kafe gi yëpp ak fu wa daay suuf Serigne war nañ si wàllum xen ma rek waa waa Uwa Sifa lañ fay yabal ndax ñooy Baye Fall daayira bi maa ki fi nekkal maam si Ibrahima Fall di sëñ Abdou mu am rek maa buñ ko waxee waa daay suuf Serigne Saliou ndigal bu bu jugee rat maam si suñ suñu lay suñ kaw lay dalaat ñu ànd ko mbokk taal yëpp dem liggéey ko si si turu daayira suuf Serigne Saliou ndax te topp rek mbokk taale bi fi ñëw di Baye Fall ak sa xel bu ñëwee la si jubal si si Baye Fall yi ndax ñun lan nañu ñun ñooy Baye Fall daayira bi te tamit mbokk taale yi fi nekk yëpp ak soxna yëpp nag maam di jëfee ak Baye Fall di dund si ak ak Baye te loolu lañ suñu borom jagleel te ñu koy ñu nangu ko lool nag waaw di ñaan suñu borom gi ñëw may may na gudd am ak ak wér ak xéwal yaatu ngeen mën a liggéeyal Serigne Touba ndax suñu guddeeg suñu bët suñu lépp liggéey Serigne Touba la ci tarkala am nañu mbégte ak kontante bu baax a baax fekk si waa wax ba si famin kulida masala tarkala ñu fekk leen sax ñu nekk ci wàllum def noonu wàllu njuufeen yi def ak wàlla waa ceeneen yi di fas yéene xewlu kon ñoo ngi leen di jaajëfal baax aco ñu ñuy bàyyi xel ci Babacar Pro nii rek lañ ko fas yéene ànd ak fii ci quartier soppey Serigne Saliou Mbacké moo leem loo xamante ni si jib na fi rek dinañ leen ne ko defee dara du leen taala wa barakaatuhu di beral ak cant ak nuyoo suñu imam bi nga xam ni moom lañ ziar si tey Amdy Moustapha Sy di ko ñaanal suñu borom mu may ko gudd fan ak wér gu gannaaw loolu danoo bëggoon yegg ci ay kàddu jagleel ko suñu imam yi ndax buñ nee wax responsabilité bu rëy bi mu yore buñ ne imam wax koo xam ne roykaay la ci waxin roykaay la ci doxin roykaay la ci jëfin te diina ji ñu nekk muy diine islam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko andi te da koo ngir xeetam bi jàngoo te buñ ca noppee di ko jàngale te ñi ko war a jàngale kenn mënu cee génnee imaam yi kon ñoom imaam yi ñoo représenté yonent bi sallallahu alayhi wa fii ci kaw kon ñoom yan bi ñu yore woyofuñ bokk na ci liñ mën a nawee imaam mooy waxkatu dëgg la moo tax suñu boroom musal ci loolu nit ñi ndax yàlla moo ni wallahu yaasimuka minan naas ba pare dellu tàggu waxkatu dëgg yi waaw ndax yàlla moo ne alladina yuballiguna risalatillah wa yaxshawnahu wala yaxshawna ahadan illa allah gaa ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëgg mooy ñi nga xam ne dañuy jottalil yàlla ab wooteem te duñ ragal kenn ku leen yedd duñ ragal kenn ku leen ayibal duñ ragal kenn ku dul yàlla ndax wa kafaa billaahi xasiiba yàlla doy na sëkk te dëgg boobu doon wax nërmeel na ci dëkk boo xam ne dëgg moo ko taxawal ndax li ëpp ci sénégalais yi léegi géeju nañ ci pexem seytaane ba fàtte yàlla suñu borom kuy wax dëgg ñu ni la waroo wax kuy wax safaan ñu may ko doole ni ko yaay ci war a wax moo tax léegi léegi wax fi dëgg wax fi safaan moo ëpp doole wax fi dëgg waaye nañ bàyyi xel bi niñ doyee dalee dëgg ci kaw suuf bés dina ñëw ñu wéetoog ci moom dëgg li war nag suñu diggante ak imaam yi mooy ñu wormaal leen fonk leen topp leen te wekki leen ndax loolu mooy sunu njariñ ndax ñoom kat ay tànneef suñu borom lañ ci biir mbindeef bu ñu la nee ustaas imaam nga wala borom xam-xam nga baal la bu war a rëy ci yow baal la boo war a yëg la baal boo war a bàyyi xel ci say doxin ci say waxin ci say jëfin ndax yow kat ab royukaay nga da nga xam ne. bépp dagg-dagg boo def rek gàkkal nga diine ji kon nañ bàyyi xel bu baax waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi waxoon ndax def ñu woon bu demee ba mujj jamono am na ñuy woowee seen bopp ay borom xam-xam di daduloo nit ñi àdduna te daduloo ko ñoom di tere nit ñi lu bon ba pare nekk ca kon nañ seetantal bu baax ñi nga xam ne dañuy wax te yàlla tax. ñi nga xam wax di leen waaye tamit du wàccee samay kàddu mu sant bi suñu imaam bi nga xam moom lañ ziar si muy imaam Amdi Moustapha Sey taxawaay bu rafet bi mu am ci xanaa kay dañ koy bàyyee rek ak suñu borom di ko ñaanal gudd fan ak wér mu gunge ñu ba ci kanam ak kanam. mbokk yi fi may daanelee samay kàddu nag mooy suñu réew mii di Sénégal ñu ñu naan sutura tumuraayu dina fi lool te yi suñu borom de moo ñu jëkk a suturaal ndax suñu bëggul woon a suturaal su ko neexee dana fexe ba bàkkaar am xet te kon bu boobaa di nga gis koo xam ne kenn du bëgg a toog ak moom ndax xet bu bon suñ réew mi li fi xew léegi mooy waaye xamul nit ñi lu bon tasaare ko ci réseaux yow mii di ay vidéo wala photo wala audio di ko tasaare ci réseaux xanaa danga déggul li yàlla wax suñ boroom nee na inna alladina yuhibbuna an tashia al faahishatu lillazina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal axira ñi nga xam ne dañuy bëgg di tasaare musiba yi ak ñaawteef yi ci kaw suuf pour ñépp xam ko ba ñépp dégg ko kooku dina am mbugalu àdduna ak alaxira te mbokk yi suñu bi mu sànkee ba pare dafa jël mbalaanu sutura muuree ñu ko ngir nëbbal bi suñuy ayib te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa woon balaa mu sutura ku ko suñ borom loo tëre ji tëre ji say kon mbokk nan suturaal suñ bopp suñ bëggee yàlla suturaal ñu wasalaamu aleykum wa rahmatullah soxna May Ñang ñoo lay sant bu baax ci discours bi am solo bi nga xam ne yëkkati nga ko te yaakaar naa ne yamul lekk ci imaam yi ci ñun ñëpp ñoo ci war a am lu jànge te ñoo ngi lay sant ci taxawaay bi di sant bu baax it commission culturelle bi ci seen liggéey ndax yaakaar naa ñoom it ñoo mën a waajal gone yi bañ ñemee taxaw fii di yëkkati lu am solo lii kon ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm day ñaan seen taxawaay yàlla yàgg kon su ko defee rek comme niñ ko waxee woon dañuy woo ki nga xam ne moom lañ fas yéene njukkal di bàyyi am di Moustapha Seye njukkal yi nga xam ne daal di soppay Serigne Salim Mbacke yëkkati nañ ko ànd ko commission culturelle bi yëpp fas yéene jël njukkal li ko ko di ci wax ne sëriñ Mademba Diaw ak sëriñ Moustapha Diop ñoo fas yéene jox njukkal li imam kon ñoo woo sëñ imam mu yegg si mën a ñëw jël njukkal lii

ñu teewlu rek te joxe njukkal yi jiital ci kaamilul bi nga xam ne sëriñ Moustapha Diop jànkatu xasida moom ko jox ànd koog sëñ kon bisimilah sëñ Moustapha jiit teg ci jàllabe bi ak kool gi bokk ci njukkal yi nga xam ne moom lañ jébbal ilimaan ak parasol bi nga xam ne am na ci solo lool bisimilah sëñ moom yeesi su ko defee ak siñaade gi nga xam ne daa bokk ci liggéey bi su ko mbuus gi parfum moo ci nek ak kamil alquran kon bismillah waw li ci njukkali la ay sijaada ngi ci bir ak kurus ak liñ ci barkeloo yepp ak enveloppe bi nga xamne ñoko wajjal jox ko sa imam ndax xeb nañ ko loolu wax deug yalla dila sante bu baax ci taxaway bi ak jëf ndax wax dëgg yalla teewaay bi amna solo ci ñun te li nga non nangul it sant nañ ci bu baax a baax a baax yaa mbooloo mi nga àndal yëpp di la ñaanal yalla seen diglay te yalla ci yeneen xewal yu kawé kawé top kon su ko defé rek ñu ñëkënte ak waxtu yi jël kaddu seen imam jëbël ko sëriñ Modou mo moom mi nga xam ne moo fas yéene jotal kàddu yi imam كون بسم الله باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك جولي في تيوي يب ني نيو زياره والحق

bu la neexoon ci wàllu adduna yi nga seet koo xam ne borom yi moyen la nga jox ko ko ndax yelloon waaye tey jox ngeen ko koo xam ne ndamal islam lay rek ñu mën a présenté te lii wane ne yéen yéen ngi liggéeyal islam waaye nag daayira bi mu tuddee soppee sëriñ Saalihu nga xam ne daayira bi incha allah day jëm kaw waaye dootu jëm suuf ndax kenn ku ne gis na Serigne Saliou Mbacké radiyallahu anhu bi tey yàlla defee mu toog ci xilaafa ci yoonu murid kenn ku ne ko am bët xool di gis gis nga fi mu yóbbu yoonu murid ci liggéeyam ci teem ci njàmbaaram ci lu ko yàlla defal ci barke maam Borom Tuuba ba tabarakallahu bi mu toogee ci xilaafa bi lépp luy diine jox ko jël ba mu lépp luy bokk jox na ko diine ba mu mat sëkk jox na ko boppam ba mu mat sëkk lépp luy tàggu jullit ñi taxaw na ci def ci alalam jiite ko ba mu mat sëkk sëriñ Saliou Mbacké yal na ko yàlla fayal ñi ko sopp sax incha allahu dootuñu torox kaw la ñuy jëm ndax liggéeyal na ko yàlla ba yàlla nangul na ko loolu kuy borom gis bi ku ne xam na loolu kon sëriñ Saliou yàlla na ko yàlla fayal yéen ñi taxaw di liggéey bii fa tabaarakallaahu dama leen a wax ne man de ku ci bokkul lay waaye ku ci bokk na sa xel daal ku bokk ci lii na sa xel daal ndax lii it ñu sal ñu bari bëgg nit ko waaye mënuñu ko yéen la yàlla def nag ngeen tombé ci. yal na yàlla fay leen ci barke sëñ Tuubaa Mbàkke ci barke maam borom Tuubaa Mbàkke barke sëñ Saliou Mbàkke daayira bii doole bi am ren déwén yal na am junneem ku ci bokk loo am ren yal na nga am junneem déwén te yàlla bu ci kenn manqué ñëpp fekke at yu bare bare bare l'islam bëgg na bokk yi bëgg na xarit yi bëgg na soppe yi bëgg nañu fa tabarakallahu dama dama ko xaw léegi laa koy bind ba pare waaye buñ ko teeloon yéen danañ ko waajal beneen waaj bu dul bii kon ngeen ci mu bari lii tuutiwul lii tuutiwul li ngeen def rëy na rëy na ci yàlla lu rëy ci yàlla nag am na tamit tabaarakallaahu yàlla leen di fayal boppam kii ngeen ko jox méritoon na ko waaye moom day ku yàlla nëbb lu mu bëgg a wax sax mën koo génnee ci kii xolam daal seet na ay mbokkam seen xol seet na waaye li gën am solo diine tey bëgg na tey bokk yi bëgg na xarit yi bëgg nañ soppe bëgg nañ yàlla yàlla bëgg ci yéen lépp lu ngeen jéem yàlla ngeen yàlla bu ngeen jéem lu ngeen nag dana am ndax gis nañ li ma gis naa ab année ngeen ñëw ci gis nañ Maodo taxaw fa jàng fay xasaay bale dëgg def fay café ni Moustapha bu muy benn dërëm def bu këyit ñëwee noonu ngeen feneen noonu feneen noonu yëmale wuñu ko ci kenn yëmale wuñu ko ci benn côté ñëpp ngeen fi nekkal yal na yàlla téye leen boppam islam bi kontaan jullit ñi bëgg nañu kon sëñ am bi nga ñaan lépp loo xam ne nii lu yiw la ak karaag ak xéewalu àdduna ak alaaxira yàlla defal lii la ñu tàllal loxo yi kàddu yi wala waaye ñu tàllal loxo yi incha allah. def ñëpp loo xam ne bëgg yéen ñu jëm si yàlla lu mu mën a doon kontaan naa ci te yàlla nañ jàpp ni jàppal nañ loo xam ne da ngeen di mën di jëm si yàlla boole am loo jàpp ba yàlla bu ñëwee dañ dépassé. amiin nee na yàlla lépp jàpp na. bisimilah. nañ taalal loxo yi lu waay bëgg na ko yéen. amiin. amiin borom kër yu ndaw yi di dépense rek. amiin. yàlla nañ am dépense. yàlla nañ jekku màggal te jekku. te jekku màggal te. nañ am tawféex. nañ yàlla musal ci wopp. wopp ak kaso. teel a faatu. amiin amiin. yàlla may xaalis. amiin. pour lew te ni jëkk tële yàlla nu jekku màggal te jekku sama mbokk jàng bismillahi rahmani rahim sallallahu وسل وسل وسل وتقابل وسل كلام Pasti hanan kain Ya kuih Japón